oustaz ñu naan ko Thierno Alassane Sall Thierno dafa yëkkati kàddu ne yéen Sénégalais da ngeen xam ne fii ba deux mille cinquante ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen war a bànneexu ci lii moom Thierno mii nga xam ne wax dëgg yàlla kenn nattablewul nag alaaji mi sax toog na fii ba taay ni borom xam-xam la moom nag dafa mel ni dafa soppi waxi jàmbur Ousmane Sonko nag wax nañu wax ji moom nan lañ ko waxee ak lan mooy projet wu deux mille cinquante ñu déglu Ousmane te dellusiwaat loolu sax da nga may jox occasion ma leeral dara ndax Sénégal dafa bëri dafa am ñoo xam ne dañuy bëgg a seppi dara dara ci contexte yóbbu ko fu mu yeggul su ñu nee vision deux mille cinquante tekkiwul dañ ne sénégalais toog leen di muñ ba deux mille cinquante loolu tam il mu leer ndax gars yi loolu la ñuy génn di wax nee na ñu ngi na ngeen muñ ba deux mille cinquante déedéet nun dañoo bëgg étage immeuble dix étages waaye nag jàpp nañ ni weer wu ne wala ñetti weer yu ne mën na am benn étage pare donc mais deux mille cinquante dix étages yi dina mat lool moo andi vision deux mille cinquante mais ñu teg ko génne leen déjà juróomi at yi jiitu lan lañ ci fas yéene def te ku ko gis xam ni lu ambitieux la kon yu mel noonu jar naa leeral. jërëjëf soxna Ndiaye mi ngi ci YouTube bi ci commentaire yi soxna ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Ndiaye sant gone la su ngeen màggee changé leen ko Ndiaye jaate ñu ngi lay nuyu bu baax a baax asan gis nga na moom ni mu déggee 2050 gi mooy sénégalais dañoo nar a toog ba 2050 maanaam fii ak 25 ans ñu toog di xaar yëf yi ñor ñu mën a xéewlu Ousmane nag leeral ñi ci 2050 bi lan lañ ci jublu. waaw am na solo xam nga. Thierno Alassane moom day borom xam-xam. Hmm. yaakaar naa ne gouvernement bi ëpp ñu ko xam-xam gën ko xam nu am réew di doxee. Hmm. te yaakaar naa ne Sénégal yi nangul nañ ko. Hmm. kon jàpp nañu ne li mu wax am na fu mu ko teg fu leer. moo tax mu wax ko. ndax programme bu ñu nee deux mille cinquante deux mille cinquante ñëwagul. kon nag vision bi mooy fii ba deux mille cinquante. bu fekkoon ni maanaam ñoom tey jii liñ bëgg a doxal mooy fii ak ñeenti at dañ naan ñu fi ak ñeenti at mais fii ba 2050 lañ ñu wax comme que fii ba 2050 lañ lañu wax nag bu Thierno waxee li day am raison pour wax loolu hmm. li mu wax nii am na si raison ndax ñii kat dañ ne fii ba 2050 foofa lañ jëm hmm. kon li fi ak àgguguñ foofu boo leen waxee daal ñu ne ah programme bi àggugu 2050 hmm. kon nag il faut ñu dem ba 2050 ñu wër ko taxaw ne li ngeen ñu waxoon gisuñu si dara kon nag Thierno moo tax mu wax lii li mu wax am na si raison pour wax ko en tout cas lu am solo la. Ah. Euh, loo xamante ni jàngat la bu mu def si vision bu deux mille cinquante. Ah. bu fekkoon ne ñoom pare nañ dañ naan suñu cinquante ans yii ñu ñu fal lii lañ fiy def ak lii ak lii ak lii mais dañoo jéggi cinquante yi jéggiwaat yéen cinq cinq cinq mandat bi bu jomaay bi jéggi nañ ko. Ah. teg bu jomaayaat mu jéggi ko tegaat ñoom seen bos tegaataat bosaatam. ak ñu lengali. procès bi doog ñëw maanaam affaire bi doog a mat. d'accord kon dañ naan diirub ñi ngi yor Sénégal daal. mën leen a jàpp si ñi ngi ñi ngi si li tax ngeen fal ñu mais wutalu ñu àpp ni bu ngeen egsee fii li ngeen bëggoon dinañ ko def hmm. ndax xam nga fii ak cinquante jomaay mën naa yéeg wàcc Sonko yéeg wàcc ñu am keneen ku yéeg benn mandat hmm. wa ñaari mandat sax waaw ñetti nit mën nañ fee jaar ñu doog a àgg si liñ ñu wax hmm. kon di ceer na wax nii daal wax dëgg yàlla lu am solo la pour ñu fàttali ko ñu xoolaat daal programme bi incha allah ñu xoolaat ko joxe hélas macha allah Mhm. ndax yow deux mille cinquante bi. Mhm. ni ko taas waxee noonu nga ko déggee. Mhm. wala ni ko Ousmane waxee am nga ci ab déggin ci daal am ngeen fukki ñaar fukki at ak juróom yu ngeen war a toog. pour àgg ci mbay mii mu war a ñor ngeen wattu di lekk. ndax yow noonu nga ko déggee. waaw xam nga loolu moom kii waxu manipuler la. parce que déggeewu ko noonu. te xam na ni ki koy wax waxewu ko noonu. Ah. xam nga xam nga jub boroom xam-xam la de ki ko wax. xam nga Thierno Alassane Sall euh, dafa dafa wane ak njub. waaw wane aussi tamit ak bëgg réewam. mais jub dangay ngay jub fépp. parce que bu ma damaa jub ci alal réew mi jub ci kii ba noppi nag di dëngal ay waxi son yi bu hmm. sama njub day des. parce que day am foo xam ne day mel ni euh, soxor day dugg. waaw lu tax. pour hmm. pourtant waa jii de ni ma mel la mel ni ma kii la mel pourtant man nekkoon naa ministre musta nekk ministre nekkutoon ministre. Hmm. lu tax moom mu mën a tëb tëb rek am lii yenn yi yàlla la boo nangoo dogal bi doo soon mais ki wax borom xam-xam la wax naa la ko. waaw mbirum borom waaw borom xam-xam dama ne la wax xam nga sànq dama wax sànq am na ay intellectuel yu malhonnête. waaw malhonnête waaw. ñaanu ma nag moom mu bokk ci te tamit am na yoo xamante ni bii di ko wax euh, baaxut mën nañ laa dëkkale foofa mhm. te pourtant mën nga bañ a dëkk foofu mhm. xam nga réew pour réew dem maanaam ki koy jiite mhm. warata yemale gis-gisu réew ci diirab mu fay ne waaw parce que bu dee moom dafa bëgg a yemale gis-gis bi ci diir ab ma fay ne mooy gis-gisam soriwut maanaam gis nga am réew nit ñi dañ koy yor am gis-gis yoo xam ni ña ngay préparé waxuma la sax vingt cinq ans mais cinquante ans ci kanam fan la réew ma war a jëm mm-hmm. fu mu war a toll lan moo war a xew si am na gox yoo xamante ni bii suuf war na ko nangu balaa boobu nan lañ leen di préparer fan lañ leen di yóbbu mhm. am na kii yoo xamante ni bi dootut amati yenn métiers yi dootut demeti nii mu demee nan lañ war a fexee ba anticiper loolu mooy li ñuy wax ne gouverner c'est prévoir mhm. loolu la ñuy wax dafa am yoo xamante ni bi état mooy xam xam nan lay doxale diggante fii ak foofu léegi mhm. nag moom buy liggéey day ciy def pàccam ñoom wax nañ diggante juróomi at yi liñ ci bëgg fas yéene yegg li nga xam ne mooy objectif bi ñu ci fixé. buñ ca yeggee sénégalais yi ñooy gam-gamle. ndax li ñu waxoon surtout fois que lañ waxoon yemb na. def nañ ko nañ ko bëggee sénégalais yi ñooy demaat ci urne yi. ne ah ñii de doy nañ ñu wala ñu ne doyuñ ñu. parce que liñ ñu promettre te diggante bi dawuñu ci lu toll nii. tee ñoo seet ñeneen ñu gën a njaxlaf loolu Sénégal mais bu boobaa kay ñëwaate day tënku ci gis-gis boobu nga xamante ni bii moom la wax moom lañ wax nga xam ne mooy gis-gisu réew mi bailleurs yi gën laa ñeme xam ni réew mu am vision nga réew mu am ay kii nga comprendre hmm. banques yi gën laa jox bopp hmm. parce que te diirab juróomi at yi am na nooy doxale ñoom ñëpp dañuy xam ni ñii kafuñu ñi ngi ci liggéey bu leer hmm. si train bi nag départ na de départ ñëpp ku yéegut. instant bi départ na. gëm naa ni bu la fi. train départ na wala mi mi ngi préparé. non train bi mu ngi ci yoon départ. fi mu toll ñoom ñi yëpp dañoo war a yéeg képp koo xam ne wóolu nga sa xam-xam hmm. da ngaa war a yéeg ci saxaar gi deux mille cinquante la jëm de hmm. ah waaw parce que gars yi kafuñu de li ñu wax danañ ko def de danañ liggéey réew mi incha allah hmm. kon nag képp koo xam ne da nga jàpp ni eh, mën nañoo faqasal wala mën naa dugal ci bopp nit ñi leneen jéem a jabuli si jéem a def ay affaire da nelaw de damaa bëgg nag ñoom ñu yeewu teel a yeewu koo xam ne mën nga cee teg dara nga teg ko ci bu fekkee ne mënoo cee def dara ah nga bàyyi te xam ni ñii pare gu ñoo ak yi de alaaj gaa yi fi nekkoon yeewu nañ nag ba tabax fi ay tabax def fi ay saal tabax yooyu làqatukaay la def fi boo ñëwee ñu dajale ko ci aw këyit benn ah, këyit nii la terrain baa ngi nii jàkka jaa ngi nii waajal fi taxaw saal bi dafa am yu bari yoo xamante ni priorité waa xam nga loolu mooy xam nga dafa am yoo këyit dafa am yoo xam ne nguur gu koy ndamoo sax moo lay wan ne la nguur gi dafa yeb askan wa. ay tëli ay comprendre nga. stade xam nga priorité dafa am. waaw xam nga yow tey ñi ngi lay wax naan defal nañ tëli fële defal nañ tëli fee yow yaa ngi nii boo génnee fii tëri yu bon yi ngay gis. loolu yëpp bon kenn defarul kenn kiiwu ko. seen tali bi yi ñu defar te bu tawee waaw duñ dem. tëli bi nga xamante ni fii lañ dëgg maanaam tëli yi dañ koy créer pour lekk xaalis hmm. yaa ngi dégg tëli corniche bi nga xamante ni bu tawee tëli bataa taa ñuy wut ay oto di manque mu ngi jàkkaarloo géej gi loolu mooy defar tëli tëli bu sës ci rëkk ci géej gi di inondé loolu moo lay wan ne la mooy gis leen rek mhm. limal leen ma bi limal leen ma bi limal leen mais duñ ca def sax li war li am solo mhm. tey dëgg mooy euh, am réew noonu lay doxee mhm. nga ne lii ak lii ak lii. Mhm. danaa ci taxaw. comprendre nga. joxe yi nga xamante mooy mais tey dafa am ñoo xam ne buñ lay limal lan lañ lay limal. defar naa stade defar naa lii defar naa lii loolu warta nekk sax yu ñuy tudd. parce que dafa mhm. am yeneen yoo xamante ni bi ñoo gën a nekk priorité. Mhm. dafa am yeneen yoo xamante ni bi tey yooyu mën na nekk mais nit ñi waruñu waruñu gis loolu sax ba yow bu ñu joxee présenté la nga yenu loolu indi. dafa mel ni échec la quoi. nga yenu ñu indi mooy la. yenu ay tabax ne tabax naa lii def naa lii def naa. waaw dégg nga ma ne ci lañ ko def. waaw am na këyit bu mag wu ñu def. def ci stade yeeg tali yeeg. ah BRT mais fexe ba nit ñi mën a dem stade. moo gën moo gën nga tabax stade te nit ñi mënuñoo dem nit ñi amuñu lu ñu lekk ba daan ñi ngi paas di dem stade. finalement billet ya nga fay yóbbu yëpp daanaka maye la. Ah, dëgg boo fexoon ba nit ñi am liggéey mën na xam ni kat waxtu jot na ñu dem. ca stade ba ñenn ñi taal seen oto dem ci stade ba ñenn ñi même buñ taalu seen oto mën a dugg fayal seen bopp te buñ demee fay paas. Hmm. mais xoolal da ngay tabax stade ba pare. pour hmm. wan la échec bi nga échec soo bëggee nit ñi dem stade ay politiciens ñooy may ay billets. Hmm. ñu ne politicien sàngam mooy maye billet fële. politicien. ñooy jëlaat alalu réew mi maye ay billet yaa ngi dégg. ñu naan kële maye na nangami kaar kële maye na nangami kaar booy na ngeen ko jàppale ci élection yi di ñëw de vrai comprendre lépp lu ngeen di def day delluwaat ci élection mais doo gis sénégalais boo xam ni dafa liggéey ñaq xaalisam normalement jël otoom dem wala mu dagg billet dem tubaab yi di def seen stade yeeg yooyu dañuy dangay ngay gis bi politicien bu leen di may billet ñuy dem stade dañuy abonné sax ci club bu stade ba si si club ba am xaalis c'est parce que ña dëkk foofu bëgg nañ di cotiser pour di participer ci club bi. Mm-hmm. c'est parce que ñi ngi liggéey ñi ngi xëy ñi ngi wàcc. Mm-hmm. loolu ngay créer fexe ba nga xamante ni bi chômage bi dellu ginnaaw nit ñi mën a liggéey di am dund gu ñoŋ. yaa ngi dégg nga mën a soog a ñëw nag di fo. mais yow amoo loo lekk bëgg a fo. Mm-hmm. ñaan la tabaxal nañ la stade defalal nañ la lii booy yi ngay gis làmb yi ngay gis yëpp muy fees politiciens yooyu maye bi yi. yaa ngi dégg. yoruñu lu ñu fa yóbbu maanaam ñu jël politicien ba tuddee ko làmb ja. waaw tuddee politicien làmb politicien yi jënd billet. lépp loolu ngay gis. da ngay gis mbër muñ jox loolu mooy réew mu dem. mbër muñ jox cinq bloc. waaw mu ne trois yi dem politicien diw jënd na ko. waa jënd na ko diw jënd na na ko. mbër mi bu bëggee tiset sax day dem ci politicien mu jëndal ko tiset. léegi ñu naan làmb facteur de développement la facteur ban développement. ñii di sàcc alal ji di ko def di ko jox ñii ñu naan. Ah, facteur de développement ci ay sàcc. loolu mooy facteur de développement bu jamoon ba nga xamante ni bii kii tëgg làmb day mën a wax ne làmb ji tëgg naa ko Assane Mesere kat mooy promoteur. Hmm. tëgg na làmb. làmb ji am na ay sponsor yu ñëw sponsorisé ko fay na mbër yi jaay na hmm. billet génn na ci. Hmm. benn politicien dugg ci. loolu mooy mu dox nit ñi ñëw jënd seen bopp billet am nañ moyen yu ñu jëndee benn politicien mayu leen ñu jënd billet. loolu mooy réew muy dox. d'accord yaa ngi dégg kay ñëw di toog di jaay ñay ñëw di jënd jënd. loolu mooy réew muy dox. am na solo.